am na ñu nag gan ñu tedd ñu ngi nii toog ku ñuy wax sëriñ Abdul Xaadir moo ko jiite jóge Niger di délégation Xaadiriya ñoom itam ñëw nañu jóge ba Niger ñooy borom gan ñooy borom mbaxana yi toog dend ak nun ndax Nigeria Nigeria lañ jóge ñoom itam ñëw nañu teg sëñ naa sëñ Cheikhouna dañoo waroon na ñëw fi expliquer leen tudd leen ngeen lakk arab bismillah أعوذ بالله السميع العليم الباقي القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب مني أن ألقي كلمة باللغة العربية وألخصها فيما بعد باللغة الولفية ولكن لضيق الوقت سيكون كلامي إن شاء الله مركزا ووجيزا باللغتين معا إن شاء الله سأقرأ الكلمة باللغة العربية ثم أترجمها بالولفية في عجالة إن شاء الله لضيق الوقت وخاصة بعد تدخل أخينا وصديقنا الشيخ محمد البشير الناطق باسم الخليفة العام للطريقة المولدية damay wax rek ne kàddu gi day gàtt loolu insha allah dañ ko def ngir ndigal rek ñu wax ne nañ ko def tuuti ci arab def ko ci wolof moo tax te waxtu wi jege na julli gi jege na ak li ñu war a jëm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 wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi dawi ridwan waltamkin wa radiallahu an sayidina wa wasilatina ila rabbina abdillahi wa xadimi rasulihi sal allahu alayhi wa sallam mutabarrikan bi qawlihi alkarim wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida asxaab alsamaa almashaayix almuhtarimin alkiram ala cheikh alxadim أصحاب الفضيلة ممثلي البيوتات الدينية السيد مختار با وزير الرياضة ممثل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الوفد الرسمي أصحاب السعادة السفراء أصحاب السيادة ضيوفنا الكرام أصحاب الإرادة قادة المريدية وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمود البشير الناطق الرسمي باسم الخليفة العام fa inni saidun jiddan bil musuli amamakum bi idnin min alcheikh abi baraka xalifati cheikh mahmoud alfadil wa bi tansiqin min almunasiq alaam li usrati cheikh alfadil cheikh mahmoud albachir wa bismi cheikh abdulfatah رئيس الناطق الرسمي باسم هذه الأسرة الفاضلة ونيابة عن اللجنة المنظمة لفعاليات معجل كنز رجب مسرور جدا لأ... لأوجه إليكم باسم الشيخ أبي بركة هذه الكلمة الوجيزة التي تدور حول ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى عبارة في امتنان وتقدير وشكر والنقطة الثانية في تذكير لسبب هذا الاجتماع ثم النقطة الأخيرة في كلمة عن اهتمام الشيخ محمود الفاضل بالعمل أو بكسب الحلال فبخصوص النقطة الأولى امتنان وتقدير نوجه امتناننا وتقديرنا لسماحة الشيخ الخليفة العام الشيخ محمود المنتقى حفظه الله ورعاه على ما له من موقف بناء ويل بيضاء تجاه الدين والوطن والأخوة الروحية والدموية عامة وتجاه آل الشيخ محمود الفاضل خاصة أصحاب السيادة الإخوة والمشايخ وقادة الطرق نوجه إليكم خالص الشكر على تفاعلكم الإيجابي معا عن صدق وحب وإيثار من أجل إنجاح هذه التظاهر الدينية ونوجه شكرنا وامتنانا باسم الشيخ أبي البركة إلى أصحاب السماحة العلماء ومشايخ الطرق الصوفية والحركات الإسلامية على تلبيتهم لدعوتنا ومشاركتهم معنا في هذا الاحتفال السنوي وأصحاب الإرادة الأتباع إخواننا والأحباء الذين يضحون بالنفس والنفيس من أجل إنجاح هذا الحدث الكريم ونوجه الشكر الخالص أيضا إلى الحكومة السنغالية عبر سلمها الإداري ala almawqif alijabi alladi akadathu min jadid fallahu yujazisukum jamian anna ala hadihi alniyat alsadiqa walamali alxasana wa nashkuru alhay'a alsaxafiya min saxaafa masmua wa mariya wa maktuba min saxaafa xaasa wa saxaafa taabia lildawla النقطة الثانية تتعلق بتذكير وجيز عن سبب هذا الاجتماع هذا الذي يتخلص في في الشكر لله على نعمة ازدياد العبد الصالح Cheikh Mouhamad al Fadil alladi raaba allahu bihi sada wa fataxa bihi ratq wa tamam bihi muraad Cheikh walidihi mawlana Cheikh mawlana Cheikh al Xadim qaddas allahu sar fi hadihi leyla al mubaraka leyla sabi al ashrin min rajabi al fardi al haram التي شهد فيها شهد فيها الكون حادثة الإسراء والمعراج التي تضمت من دلائل القدرة والإرادة والإنعام والتفضيل ما لا يعد ولا يحصى مما يشير إليه القرآن الكريم واستمعنا إلى xafidina qabla qalil yushiru ila hadihi al-aya al-karima min surati al-isra ba'da bismillahi rahmani rahim subhana alladi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-samiu al-basir wa jaa fi ayatin uxra dakaraha al-xafid xafidahu llah fi surati an-najm summa dana fadalla fa kana qaaba qawsayn aw adna fa awxee ila abdihi ma awxee ma kadaba al-fuaadu ma raa ila axiri al-aya wa min dalikum as-salaat التي هي أهم أركان الدين بعد الشهادتين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة والتي كان للشيخ الفاضل اهتمام خاص بها لما له من مظاهر عديدة وأهمية كبيرة في ديننا الإسلامي من أهم تلكم المواقف هذا موقفه في مسجد توبة هذا الصرح الشامخ المتواجد أمامنا الحافل بالدروس والعبر النقطة الثالثة والأخيرة اهتمام الشيخ بكسب الحلال نستخلص من حياة صاحب هذه الذكرى الشيخ محمد الفاضل الذي كان مثالا يحتذى به في كل جوانب حياة المسلم الحق والمريد الصادق إلى أن الذي اخترناه لكم هذه السنة كما تعرفون هو اهتمامه بكسب الحلال الذي هو واجب ديني وضرورة إنسانية وسبب للطاعة والقبول قال الشيخ الخديم رضي الله عنه وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بغير وهم لا ينفع العلم ولا العبادة bil akli lxaraami inda saada iltamisu lxalaala kulla saa bi aklihi yabdu lhuda wa taa fa fa cheikh almuxtafa bihi cheikh almuxtafa bihi cheikh Fadal rabba wa allama wa darraba wa allafa wa ajaada shaaran wa wajjaha wa bana masajida wa jawaamica wa xajja wa saacada xujaajan wa zaraa wa asasa qura wa anfaqa fi sabilillah wa raa usaran wa daa li muxtaajin wa xalla azamaat wa saada talabat alalm wa shafa marda wa anqada muxtaajin duna ma nadirin ila usulihim aw aqidatihim aw intimaihim fi sénégal aw xaariji sénégal wa alayhi fa cheikh abou baraka yadcuuna jamian ila mazidin min alihtimam bi talabi alxalaal biictibaarihi min alcibada allati min ajliha xuliqna wa min alamali alsaalix axadi arkaani almuridiya alasaasiya allati hiya fi jumlatan ibaada an ibaada bi ixlaas ibaada xaalisa li wajhillah bi ittibaai tariqi sunnati almustafa alayhi salatu wasalaam wa wasailuha al ilmu annaafic wal amalu saalix wal adabu almardi min asbaabi alquwa allati amarna bi idaadiha qawluhu fi subhanahu wa taala fi alquran alkarim wa aidu lahum min stataatum min quwa wa xitaaman li diq alwaqt نختم هذه الكلمة بالتضرع إلى الله تعالى والدعاء لإخوة أحباء تربطنا بهم علاقات وطيدة من مودة وحسن المعاملة وقد قدوا نحبهم بعدما صدقوا ما عهد الله عليه منهم ابنة عمتنا soxna maam Boussa Mbakke soxna Bari Mbakke albarra wa minhum al ibnu ruuxi li cheikh Mahamadou Fadel axuna Sidi Lamine Niass alayhi kaana maarufan fi hadi diyaar zakarani shaxsiyan bi annahu kaana yazuru cheikh wa kaana yanzil inda walidi cheikhina inda walidati cheikhina wa yaqul loo cheikh bil arabia tajidni fi ndindi dakar wa kaane indahu alaqat xasa ma cheikh Mamadou Fadel wal axawaani saalihani sayida ali atral xadima sëriñ bara mbakke wa sëriñ cheikh mbakke ibnu cheikh abdullahi borom dërëb zakarnahu qabla xalil alladani xalla ajaluhuma xilal al usbuu al maadi rahimahum allahu jamian wa radiya anhum wa askanahum fi lfirdaws il ala maa annabiyiina wa siddiqina wa saalihin wa xasuna ulaika rafiqa wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin liñ bëgg a tënk ci gàttal rek ngeen jéggal ma li ñuy wax dañ koy wax ci turu sëriñ Abo Mbacke moom di ko wax ci turu sëriñ Bachirou Mbacke miy jëwriñu kër gi ci ndigalul sëriñ Abdul Fattah mi yor kàddu kër gi xam ne lii ak commission bi yor ak bi yor liggéeyu màggal gi ñoo ko tënk ni wax naa ko wax seen tur mu di ñetti ñetti mbir lay aju rek ci gàttal gannaaw bu nuyoo jàdd yolle kàddu cant fàttali li tax ñu daje fi tey wax wax sëriñ bi ni muy téewoon liggéey ci gàttal mënoon naa gudd lool waaye jotaay bi gàtt cant gi mi ngi sëriñ baa ngi koy jiital jëmale ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko wax nañ ko sànq yàlla na fi yàggal te wér ndax taxawaay mu rafet ci diine ji ci bokk gi ci réew mi rawatina ci kër sëñ Fallou mooy wax ne sëriñ Muntaxa li wolof di wax maa ca raw maa ca raw gàtt xel la waaye ku joxasu moom ku ne da ngay def fi mu nekk tegu fa kenn waaye kenn sikki sàkkawul te sëriñ bi xam ne teg na sëriñ Fallu euh, place bu rëy boo xam ne dañu alhamdulilah rabbil alamin yàlla yàgg lool rek di sant kilifa yi fi teew yëpp kilifa yi diine yi waa kër sëriñ Tuubaa yi waa kër kilifa yi diine yi nuyu ministre bi mu Mokhtar Ba ak ministre yi mu àndal ak délégation bi mu àndal toogal fi président de la république ak ambassadeurs yi fi toog ak kilifa diine yi fi toog yëpp ak ñun taalibe yëpp suñ baa ngi ñu nuyu ñëpp di ñu sant leen gërëm ci lépp li taxawaayu rafet yi ngeen taxaw ci bis bu tedd bi xam ngeen ko gis na ko yëg na ko kàddu cantuk sëriñ bi dana ci ñëw di sant presse bi presse bépp rek presse presse privée bi ak presse publique presse d'état bi ak presse privée bi moo xam presse écrite bi la wala presse télévisuelle wala presse écrite ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku teew ci bis bi da nga jàpp ci bis bi sëñ bi gis na ko yëg na ko ma lay sant di la gërëm te sant mën ta weesu sant te waxtu bi xat na kon ñette ñaareelu point bi mooy day fàttali ñu fi tax ñëw rek juñu nañ ko sànq te ñëpp xam nañ ko mu li barkeelu ci feeñ gu Cheikh Mamadou Fadel feeñoon ci guddi gi te xam ngeen ne guddi gi lu bari xew ci ci tënk ci la sëñ Fallou feeñ ci lañ gàdday ràññaaye woon yonante bi sallallahu alayhi wa mu jógee Makka dem Baytul Maqdis jóge gën a kawe ci la jullit juróom wàcc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 wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun jàng ngeen ko yéen yëpp Sëriñ Tuubaa wax ne daan ko tuddi talabul xalaal waaw kasbul xalaal mu ne talabul xalaal farata la ci jullit bu nekk loolu amu ci lu ma si sàkka mu ne xam-xam kese du jëriñ jaamu yàlla kese du jëriñ féeg defoo ko tey lekk lu lu dagan kon nag da di sàkk lu dagan waxtu wu ne bu ngeen bëggee ak njub bu ngeen bëggee seen seen seen topp suñu borom nangu ci loolu moo tax sëriñ abul ñuy sànq di ñu ñu fàttali di ñu gën di dénk ñu gën a góorgóorlu ci liggéey gën a góorgóorlu ci sàkk lu dagan te jàppe ko ne jaamu yàlla la ak avant muy nekk leneen te jaamu yàlla googu moo ñu fi indi muy muy jëf ju te xam nga ne jëf ju jooju soo ko boolee ak moom jaamu yàlla xam-xam buy jariñe ak jëf ju yiw ak ak ak jikko yu ñu gërëm mooy firi yoonu murid Sëriñ Fallu bi tax bi tax teew nag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 wax na ci ay jafe-jafe yu amoon ci Sénégal ak bitim Sénégal ñaan ci yàlla saafara ko dimbali nañu bare bare xamul lu seet fañ bokk ak fuñ lu ñu gëm donc gannaaw meloo nit lañ yor rek dana leen dimbali jàpp leen ngir yàlla ngir yàlla tax ndax li daan wax ne dana buy xool nit ñett la cay xool yàlla mi ko bind ak melow yonent bi sallallahu yi mu yore ak melow Sëriñ Tuubaa bi mu yore ak ak yaakaar gi ko tax ñëw kon daawul tas yaakaar point yi mu junj lu ci nekk mën nañ cee wax lu bare bare bare waaye wax waaye waxtu xat bi moo tax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 wax na ma ci làmmiñam ne bu mësaan ñëw fii kër suñu waajur bii euh, euh, waajur sëriñ bi la ko sëñ Fallu daara nee na bu sëñ mësaan dugg ci oto bi bay dem bay dem ndindi da koy déey wax ko ci arab ne ko tajidu nii fii ndindi bokk ci ñi mu njëkk ñi mu njëkk invité ci diine ak jamono ba mu koy door a créé kon bu ñuy bu ñu sas wax ne naa ko jottali dañ cey bég sant bu baax ñaan yàlla xare ko àjjana gën a kaw sëriñ bi dana joxe ñaan ñeneen ñaar ñi fi bàyyi ko bu yàggul tudd nañ leen muy sëriñ Baara Mbàkke moom soxna Fatja ak sëriñ Cheikh moom Cheikh Abdoulahi Mbàkke borom dara bi yëglu bërki démb kon ñu ngi koy ñu leen di fàttaliku di la ñaanal sëñ bi joxe ñaan gi sëñ bi leen ñaanal ñun dañ ne woon ñu àggali ci lii rek yàlla ñaan ñaan yàlla yàlla yërëm leen taxar leen àjjana ji gën a kowe lii woon ñu tënk ko ci ci ci jéggalu nag ndax kilifa yi war a teew ñu jëkkati kàddu danañ digal li bu ñu dagee bu ñu dabee te bett ñu rek danañ ca jéem a nab nab bi jéem caa jaaxase xam nañ ne wax waxtu xat na lool kon ñuy sant bi gërëm tey delloo kàddu gi waaw yuqaalu li bi anna hunaka wafd jaa min Nigéria al ixwanu rahib bikum jamian wa xaasatan hum min atariqa alqadiriya wa adunnu annahum zaaru tuuba qabla hada li anni raaytu muqaabalatahum maa cheikh Mouhamadul Amin Baara wa raaytuhum maa ibn axi cheikhuna Mbakke idan marhaban bikum fi daarikum wa fi manzilikum wa naqulu lakum kama qaala shaair yaa dayfana law zurtana la wajadtana nahnu duyuufa wa anta rabbul manzili idan marhaban bikum fi baladikum bayna ashiqaikum wa ahbabikum fi hada fi tuuba almahrusa allati hiya baladul muslimin baladu jami wa baladul muslimin aynama jaa'u wartaxadoo waxaj barakallahu Mbakke rafet na lool sëriñ bii dafa am gan ñu bàyyi ko ba Afrique di sidd ñëw fekk si sëriñ Abo muy patrite ak misel xam nga sëñ fa lu am na lu ne ñëw nañu waaye délégation Côte d'Ivoire Ngom jiite ko ak délégation Guinée Bissau Fallou bajaan moom itam jiite ko dennante ak sëriñ Mamor di njabootu sëriñ bi ak sëñ Alaaji Jóob ak njaboot gi yëpp dikk nañu rafetlu bu baax teewaayu docteur Sylla tubaarkàlla docteur Sylla ci la bokk ak Alaaji Alla Sylla moom itam di kenn ci président moom itam dikk na Birima Gara wax nañ ma ni yónnee na fi delegation bu am solo waaye rafet rafetluwaat rek sëriñ Cheikh Bara Laat sëriñ Moustapha mi nga xam ne tey mooy Cheikh Sidil Maxtaar moo bëggoon a ñëw waaye bu dikkee sëriñ Cheikh Corom rakam ji toog dikkal nañ ko délégation sëriñ Cheikh Coro ñoom itam ñi ngi fi délégation Ousmane Sonko ñu ni sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moo ko jiitee